auzu billahi mina shaytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim jërëjëfe sëriñ tubaa jaraw lakk maam cheikh ibrahima fall lamp jërë ngeen jëf euh, sunu mbokk ñi nga xamante ne ñooy taskatu xibaar yi ñëw fii tey géejawaay arrêt du bales kër sëriñ lamin Bara Fall waxtaan tey ci wàllu wàllu doole wàllu ngóora wàllu kàttan ak wàllu sëy ñoo ngi leen ciy déglu bépp question bi nga xamante ni posé ngeen ñu ko ci rek incha allahu rabbi dinañ ci mën a waxtaan sunu kéemtalaay kàttan joxe ci sunu xam-xam partage ko ak yéen donte nag xam-xam moom lu jafe waxtaane la ci jamono ji ñu toll waaye nag dañ ci dañ ci waslu àq sunu kéemtalaay kàttan li ci des rek incha allahu rabbi yàlla nekk njëriñ ak dégg ak topp ñu ñaan ba képp ku ñu yàlla booleel incha allahu rabbi ta ñu nar la jëriñ yàlla nañu sunu borom wanale képp ki nga xamante ni itim sunu borom. namm na la gën ci yow yàlla la ko yàlla defal te yóbbu la faray faj ak li gën ci yow ci baaxu yàlla ci màggu yonent bi ak aminu sëriñ loolu soo ko déggee maanaam forme yi am ci dysfonctionnement érectile dafa bari tout d'abord dysfonctionnement érectile définition mooy góor gi nga xamante ni dafa am jafe-jafe maanaam mi ngi am soxna waaye dafa am jafe-jafe pour sëy moom normal jafe-jafe nag pour wàllu sëy nag nekk na lu yaatu ndax boo ko seetloo lu ci njëkk dafa am faiblesse sexuelle mooy première forme bi deuxième forme bi am na impuissance sexuelle

bëri na askan bi ak jeunesse bi ñi ci juddu ñu bëri seen sexe il mu am développement bu normal mais day am bu tuuti bi nga xamante ni daal day nekk lu day waar loolu mooy quatre formes yi ci gën a fës ci wàllu dysfonctionnement érectile. dama euh, déggoon ay sëñ Bara ñuy wax ci moom ay jaloore. Euh, ñoo xam ne dañ fa demoon am ay résultats. bon pratiquement mosuma say hôpital am kan naa soxna no du ma intéressé mais pratiquement damay sentir ni bu may say dal pratiquement ak bu ñëk bu ak légui vraiment outé na outé na amna différence ci la ñëw dégg ñuy wax sëñ baara ma ñëw seet bon warna mat juste eh, deux à 3 mois ma ngi sentir am vraiment amélioration wax dëgg la par rapport bu ñëk bu waaw jërëjëf jërëjëf mamran jërëjëf machallah allah jërëjëf waaw témoin boobu moom wax dëgg yàlla li ñuy wax rek mooy euh, sant yàlla ndax loolu suñu borom la yàlla moo ko namu yàlla moo namu ci moom wér ndax dañuy faj mais yàlla mooy wéral ndax docteur day faj sëriñ day faj mais yàlla mooy kii wiral waaw ku feebar faju wér yàlla la neex kon sunu borom moo ñu boole damay ñaan rek képp ki nga xamante ni yàlla moo ñu boole yàlla namm ci wér yàlla ñu sunu borom wanale ci kaw suuf képp ku nar a ñëw ci ñun te doo wér yàlla la sunu borom yóbbu fa gën ci yow man loolu laay ñaan incha allah ndax ku feebar faju wér yàlla la neex yàlla na sunu borom nangu suñuy ñaan yëpp yàlla yenent bi sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall rek la ñu yaakaar ñoom daal la ñu teg suñu lépp ñoom la ñu jox suñu lépp jërëjëf Mame Rane xanaa ko ñu jàll ci la ca topp. jërëjëf Cheikh bi jërëjëf euh, origine forme yi nag les origines des formes loolu soo ko déggee comme ñeenti forme yooyu ma jotagum cité donte nag bari na lool waaye ginnaaw ñeenti yooyu daf ci gën a fës rek temps bi duñu ko may origine yi nag mooy li ci gën a fës moy comme bi mo ñi nga xamanteni sen sexe dafa tuuti wala dafa ndaw forme bobu liko causer moy surtout masturbation masturbation nak pour ñu ko xamul moy mballu moy xalé bu goor bi nga xamni wala nit ki nga xamanteni da fay xol téléphone envie di foy bopam di lolu bokku na ci li xamanteni première cause yi bokku na ci li ci gëna fess éjaculation précoce ki nga gaaw yegg lolu origine bi ci gëna fess stress nit ñu bëri bu ñu stressé du am éjaculation précoce loolu mooy seen origine muy ki nga xamante ni dafay ànd ak soxnaam mais du ma deux wala trois minutes sax day gaaw a daanu. kon nag bu ñu jëmaatee ci wàllu faiblesse sexuelle fatiguement muy coono dafa nekk li nga xamante ni day tax góor du am puissance du am puissance normale ak ñi nga xamante ni itam comme ni ma ko waxee sànq dañuy def masturbation ndax lu mat a leeral la mooy sexe dafa am yax góor boo mënti gis sexe am dafa war am yax bu ci digg bu nga xamante koy may kattan may ko mu tax muy am puissance mooy tax du am benn bu rapide loolu nag bu ci li cause lay doon ak mooy origine bi nga day tax puissance du mën am endurance du mën a durer te du mën ci kon origine forme yi buñ ko la ak li ci a muy ay garab bu ñu duggee ci développement bi du ñak dañ dem ci question yoyu mais origine dal en fait en quelque sorte lool la. nit ñi mi gëna dal nak dysfonctionnement érectile yoyu muy faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce nit ñi ëpp ci ñi mi dal buñ ko sétlo jamono ji moy jeunesse bi jeunesse bi mom vraiment sonu nañ trop ci lool ndax légui xalé yi dañuy judd rek fi ñu wara amé soxna diggante quinze ans vingt ans ba vingt cinq ans trente ans dañu gis couche jeunesse bobu dañu am jafé jafé trop. ci walu doole walu ngor walu katan ak walu sey ñom ñoko ëpp ndax bu jëkkoon pa yi nga daan gis mag ñi nga xamanteni am nañ ay soxna am ay njabot def nañ seen vie ba pare ñom ñoo daan dem ba ci diggu adina di am problème bobu waye legi jeunesse bi lañu gis ni ñom dañuy juddu rek galankor yoy di leen dab ak di leen dal jeunesse bi daal ñoo ci ëpp problème donte nak fléau la bi nga xamni wala problème bi nga xamni problème bi nga xamanteni Sénégal gi yépp la concerné Sénégal gépp pour wax dëgg moom Sénégal gépp la concerné euh, li ëpp ci góor ñi quatre-vingt-dix pour cent ci góor ñi ñi ci ëpp ci ñoom ginnaaw am nañu jafe-jafe boobu bari na waaye nag jeunesse bi xale yi population bu bu nga xamante ni ñoo ngi toll seen buntu àddina ñoom la loolu gën a sonal te loolu wax dëgg yàlla nekk na li nga xamante ne lu doy waar la nekk xale di doog am def sa vie ba pare yow da ngay manqué confiance si sa bopp wër ni yow mi boo takkee soxna sax doo ci mën dara wala boo amee soxna sa soxna day tëdd nga tëdd doo am benn envie doo sawar sax pour mën a ànd ak moom ci sëy normalement loolu nekk na li xam xamante ne lu doy waar la nag dama fi doon traité dama am woon malade waaw malade bi nga xam si ne maanaam maanaam wàllum nguurale woon waaye daal yàlla dimbali na ma si ba mu woon man ba ma egsi fii sama wó sama ngóore dafa wàññeeku woon xam nga xam nga wàllum ndaw rek wàllum ndaw rek boo toppee wàllum ndaw moom loolu tout le temps da mën na laa mën na laa escanté ci lu bari waaw boo toppee sa ndaw rek maanaam lu si bari boo si toppee ba yàgg ci loolu mën na laa indil feebar yooyu noonu antir naa ci ab tawféex bu baax faj bu matuwaat te dem naa fu ne nag dama daan gis ni moom bu ma fa demee sax maanaam maanaam feebar bi dafa mel day gën a yokku daal ma ñëwee fii nag ma tek fek sëñ bi sëñ bi jox may garabam jox may ñaanam bi ma ko defee ñaari yoon da ñet ma gis ci daal ay tan bu baax waaw bu tan bu baax sax bu baax a baax amatuma benn problème waaw garabu olof yi daal moom xam naa mom moom moom moom moo faj moo faj lépp daal waaw jërëjëf jërëjëf Mame Rane jërëjëf macha allah jërëjëf waaw témoin boobu moom wax dëgg yàlla li ñuy wax rek mooy euh, sant yàlla ndax loolu suñu borom la yàlla moo ko namm yàlla moo namm ci moom wér ndax dañuy faj mais yàlla mooy wéral ndax docteur day faj sëriñ day faj mais yàlla mooy kii wéral waaw ku feebar faju wér yàlla la neex kon sunu borom moo ñu boole damay ñaan rek képp ki nga xamante ni yàlla moo ñu boole yàlla namm ci yow wér yàlla ñu sunu borom la ci kaw suuf képp ku nar a ñëw ci ñun te doo wér yàlla la sunu borom yóbbu fa gën ci yow man loolu laay ñaan incha allah ndax ku feebar faju wér yàlla la neex yàlla na sunu borom nangu suñuy ñaan yëpp yàlla yenent bi sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima rek la ñu yaakaar ñoom daal la ñu teg suñu lépp ñoom la ñu jox suñu lépp jërëjëf Mame Rane xanaa ko ñuy jàll ci la ca topp Euh, symptôme yi nak mom niñ ko mëna xamé moy comme ni ma lé légui rek nga am sa soxna sa soxna teud nga teud pendant une semaine do sax sawar pour andak mom ci walu sey bare na ci ñi xamanteni lolu mi ngi leen di dal ak ñi may seetaan ñi xamanteni ay jigen lañ sax am nañ borom kër mais seeni borom kër duñu sawar bare na ay goor yi xamanteni itim ñoo ngi may dégg seen soxna day teud une semaine duñu sawar duñu sawar sax andak mom moom te kon la ku ko sentir ci sa yaram rek war nga jog dem xooli sa bopp. ñaareelu point ba mooy ñi nga xamante ni itam euh, bu ñu duggee ci seen kër rek dañuy tiit dañuy seen fit bi day tëf tëfi wala dañuy érectionné ba mu jóg même pas quelques minutes mu am mu di mu di am dysfonctionnement sexe bi day peer day tuuti wala mu ndaw wala bu ñu tiimee seen soxna rek dañuy gis ne automatiquement loolu day bàyyi sexe bi day tuuti di bàyyi du ñu sawar pour ànd ak moom loolu mooy symptômes yi nga xamante ni moom lañ koy xamee te itam mën na def ay migraine bopp yi metti am ñoo xam te ni seen bët yi day lëndëm seen fit yi ak ay mettitu ndigg mettitu yaram yooyu yëpp dafa nekk li nga xamante ni nit ki bu koy sentir ci yaramam rek euh, mën na indi ay gàllankoor yi nga xamante ni mën na téye dooleem ma na téye nguuram ma na téye kàttanu sayam waaw symptômes yooyu daal moo ci gën a fës. man fii li ma fi indi woon mooy sama jëkkër moo amoon problème problème mu nguuram. amu ko woon bu ñu sëyee mais après la ko dab daal. sëy nañoo à peine dix ans yooyu daal dix ans jàpp onze ans. am nañu trois gosses. la ko affaire yi dab daal. affaire yi daal da ko dafa doon wàññeeku daal. waaw léegi ba dem ba affaire yi ñëwatul. après ci lan ma wanalee ma doon waxtaan a sama benn xarit. mu expliqué ma sëñ bi daal. ci laa ñëwee ñëw seet ko. dis ko sama soxla parce que avant dama ko waxoon sama jëkkër pour mu ñëw fii mais bëggul ñëw daal man fu ma ko wax daal du nangoo leen. ma ne comme man maay jigéen affaire bi ñaaral xaaral ma ñu jóg demal ko. ba xam bu fa ñëwee ba léegi mat na ay trois mois yooyu de alhamdulilah rabil alamin demoon nañu hôpital mais affaire yi bu ñu demee hôpital day ñëw après day demaat du normal waaw jërëjëf jërëjëf maam Rane jërëjëf macha allah jërëjëf waaw témoin boobu moom wax dëgg yàlla li ñuy wax rek mooy euh, sant yàlla ndax loolu suñu borom la yàlla moo ko namm yàlla moo namm ci moom wér ndax dañuy faj mais yàlla mooy wéral ndax docteur day faj sëriñ day faj mais yàlla mooy kii wéral waaw ku feebar faju wér yàlla la neex kon sunu borom moo ñu boole damay ñaan rek képp ki nga xamante ni yàlla moo ñu boole yàlla namm cee wér yàlla ñu sunu borom wane la ci kaw suuf képp ku nar a ñëw ci ñun te doo wér yàlla la sunu borom yóbbu fa gën ci yow man loolu laay ñaan incha allah ndax ku feebar faju wér yàlla la neex yàlla na sunu borom nangu sunuy ñaan yëpp yàlla yenent bi sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall rek la ñu yaakaar ñoom daal la ñu teg sunu ñoom la ñu jox sunu lépp jërëjëf Mame Rane xanaa ko ñu jàll ci la ca topp waaw risque yi nga xamante ni a ndax boo amee soxna nga nekk góor wala amagoo soxna sax nga nekk góor ba pare yow munoo dara ci jigéen risque yum lay indil dafa bari ndax da yàq sa àddina déjà booy liggéey doo concentré wu fi nga nekk di liggéey da ngay stressé wu doo am benn motivation wu góorgóorlu ci dara te encore day tas sey góor gu amagul soxna sax jigéen boo koy labar ah mu gis ni yow mii sa ngóor dafa doy waar maanaam amoo kattan dëgëroo ku jigéen ki du ko du sawar du sawar pour mën a def yow benn projet jigéen joo nekkal sa relation du durée jigéen joo mën a nekkal itam du la respecté yooyu yëpp nekk na ay risques yi nga xamante ni dafay yàq àddina góor góor daal dëgg-dëgg buñ koy wax ngóora moo tax ñuy wax góor mais bu fekkee da nga nekk góor ba pare sa ngóora normalul ah lolu mom vraiment dina meuna yak euh, lu bari ci doom aadama les risques des médicaments industriels moy médicaments industriels yi dafa bari ay anti inflammatoire bép garab bu am anti inflammatoire wala antidépresseur lolu nit ku koy utiliser tôt ou tard dañ la indil impuissance sexuelle wala mu indi la éjaculation précoce wala mu indi ay dysfonctionnement ci sa walu sey te lolu itim kon lu mata a la kon garab yi nga xamanteni itim ñu koy jaay dafa bari yi nga xamante ni indi lorangé ngoor ci wàllu dooleem ak ngóoram ak kàttanu sayam kon bépp gu garab bu nit di jël na fekk sa médecin moo lay bindal ordonnance bi nga war ko mën a jël ndax garab yi dafa bëri ay effets secondaires yi nga xamante ne mu ngi ci. beneen côté bi itam médicament yi. mooy am na xeetu garab yu bële yu tuuti yu ndaw yooyu damay bañ def la publicité pour eux am na garab yu ndaw yu tuuti yooyu gars yi di jaay pour wàllu sëy ndax yooyu itim ay aphrodisiaque la kon gars yi nañu moytu aphrodisiaque yi aphrodisiaque soo koy jël pour sëy au fur et à mesure da ngay dem ba sa organisme da koy reconnaître te sa organisme su ko reconnaître ba xam ko ba xamé ko bu yàggee day dem ba dootu la jëriñ dara voilà kon nag nit ki da ngay moytu autodépendance si yooyu moytu leen garab yooyu ñu jël yi nga xamante ni daf lay pousser pour nga mën a sëy képp ki nga xamante ni am nga jafe-jafe ci wàllu doole nguur a kàttanu sëy nga dem seeti médecin wala nga seeti ko mel na man ñu jox la un traitement adéquat bi nga xamante ni dana tolloo ak sa yaram di ko mën a jël jafe-jafe yi ngay am dysfonctionnement yi ñu consulter la faj la traité la jox la garab yu wér te wóor yi nga xamante ni macha allah. ah saa waay affaire yi moom affaire yi moom bii taxaat marché na de saa waay lii moom macha allah waaw affaire yi bu sooree rek après nañ ci waxtaan incha allah yow moom wuu moom daa yëngu ba suba teel bi sax mi ngi yëngu yàlla xam na ko baax na de macha allah. waaw jërëjëf jërëjëf Mame Rane jërëjëf macha allah jërëjëf waaw témoin boobu moom wax dëgg yàlla li ñuy wax rek mooy. Euh, sant yàlla ndax loolu suñu borom la yàlla moo ko namm yàlla moo namm ci moom wér ndax dañuy faj mais yàlla mooy wéral ndax docteur day faj sëriñ day faj mais yàlla mooy kii wéral waaw ku feebar faju wér yàlla la neex kon sunu borom moo ñu boole damay ñaan rek képp ki nga xamante ni yàlla moo ñu boole yàlla namm ci yow wér yàlla ñu sunu borom wanale ci kaw suuf képp ku nar a ñëw ci ñun te doo wér yàlla la sunu borom yóbbu fa gën ci yow man loolu lay ñaan incha allah ndax ku feebar faju wér yàlla la neex yàlla na suñu borom nangu suñu ñaan yépp yàlla yenent bi sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall rek lañu ñu yaakaar ñoom daal lañu ñu teg suñu lépp ñoom lañu jox suñu lépp jërëjëf Mame Rane xanaa ko ñu jàll ci la ca topp wax dëgg yàlla vivre ak nit ku impuissant c'est difficile c'est très difficile waaw nit bi nga xamante ne dafa am dysfonctionnement érectile dafa impuissant ci wàllu sëy jigéen buy dund ak moom métti na moom ci wàllu boppam itim dund bu métti lay dund waaye pour mu vivre ak jigéen dana difficile bon xanaa rek bu amee soxna su baax dina ko encadrer conseiller ko jàppale ko tekk ci yoon bi nga xamante ni bu fa bu ko jaaree dina mën a dina dina mën a wér ndax impuissant muy tële nit ku tële ah wax dëgg yàlla boo amee soxna nekk ak moom du ci gis boppam de du ci gis boppam bu la respecté nag am espoir am yaakaar dina xaar mais loo mën a gis am na fu mu yem am na fu mu yem kon nag vivre bu difficile la vie bu difficile la couple yi nga xamante ni ku góor gi dafa impuissant boo ko dee xool du am respect ci kër gi du am kàddu ci kër gi te dañ koy xas wala dañ koy xooli bët buñ la xasul nga dégg ko itam daañ la jëw wala ñu xool la ay bët te c'est un peu frustrant pour loolu kon nag c'est un peu difficile ñoo ngi masawu képp ki nga xamante ni dal na la te yàlla na la yàlla teg ci yoonu siraatal mustaqim wane la la ak li lay jëriñ nit ku impuissant mën na éjaculer mais dafa ñàkk kattan du durer ñaareel ba day gaaw a daanu ñetteel ba itim day am faiblesse du dëgër fay am faiblesse amul endurance bi kon nag mu ngi noonu daal bëriwul njëriñ bu baax waa ci wàllu prévention bi ni ñu koy prévenir mooy lenn lekk légume bu bëri ak lekk fruit bu bëri loolu moom bokk na ci premier conseil bi nga xamante ni ñoo ngi leen koy may moytu itim hamburger yeeg moytu lépp lu niin ak lépp lu gras beneen prévention bi nga xamante ni ñoo ngi ko ci wax mooy éviter de faire masturbation masturbation moom bépp nit bi nga xamante ni yaa ngi koy def jàppal ni tôt ou tard dina indi dysfonctionnement érectile ci sa wàllu adina di nga faju ju ngóora di nga faju ju éjaculation précoce di nga faju ju faiblesse di nga faju ju lépp luy dysfonctionnement ci wàllu érectile faiblesse sexuelle éjaculation précoce ak impuissance loolu moom tôt ou tard sa adina moom dana bari torop loo koy faju te dina jafe pour nga wér tant nit ki mi ngi utiliser yooyu may wax incha allah waaw traitement bi nag am nañ ci benn gamme de produit bu ñuy wax rapido extra moy solution bi xamanteni c'est le meilleur beaucoup plus adéquat ak ñetti pommade la yi nga xamante kenn duko lek te kenn duko ko naan day faj lepp luy dysfonctionnement érectile ci faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce lepp luy jafé jafé ci walu doole walu ngoro walu katan ak walu sey képp ku ko am rek dina faju ba mu wér am ñoo xamanteni itim dañ leen di proposer ay poudre yi ñu naan waaw am na ay poudre yi nga xamante itim lu ñu naan la ñi nga xamante ni moom la ñuy wax yokk Pastef waaw yokk Pastef it nekk na garab bi nga xamante ni macha allah poudre la sous infusion nga koy jël soo ko jëlee dina traité du aphrodisiaque mais dana la traité lépp luy dysfonctionnement érectile faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce. salaamaaleykum wa rahmatullah waaw sëñ Bara ñoo ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay euh, di sant suñu borom bu baax a baax waaw garab bi mu ñu jox essayé nañ ko. Euh, mooy buy dépanner dépannage bi waa vraiment comme turam nu ko waxee dépanner na bu baax a baax macha allah ñooy sant bu baax gis nañ ci suñu bopp waaw yàlla na continue te topp si jërëjëf waaye yow it yàlla yokk taw féex jërëjëf merci waaw jërëjëf jërëjëf maam jërëjëf macha allah jërëjëf waaw témoin boobu moom wax dëgg yàlla li ñuy wax rek mooy euh, sant yàlla ndax loolu sunu borom la yàlla moo na namu yàlla moo na ci moom wér ndax dañuy faj mais yàlla mooy wéral ndax docteur day faj sëriñ day faj mais yàlla mooy kii wiral waaw ku feebar faju wér yàlla la neex kon sunu borom moo ñu boole damay ñaan képp ki nga xamante ni yàlla moo ñu boole yàlla namm ci wér yàlla ñu sunu borom wane la ci kaw suuf képp ku nar a ñëw ci ñun te doo wér yàlla la sunu borom yóbbu fa gën ci yow man loolu laay ñaan incha allah ndax ku feebar faju wér yàlla la neex yàlla na suñu borom nangu suñuy ñaan yëpp yàlla yenent bi sëñ Tuubaa ak Cheikh a Fall rek la ñu yaakaar ñoom daal lañu ñu teg suñu lépp ñoom la ñu jox suñu lépp jërëjëf Mame Rane xanaa ko ñu jàll ci la ca topp forme ci am moom bari na yëpp baax nag wax dëgg yàlla yëpp a baax ñun nag ça dépend bu ñu defee nit consultation ba pare après diagnostic ci li ñuy mën a xam ndax kii pommade bi lañ koy jox wala kii poudre bi la war a jël wala selon ni kii itam communication bi mu dégg lan moo ko intéressé ak lan moo ko arrangé li mu ci bëgg rek ñu defal ko incha allah en tout cas saafara am na fi solution am na fi yàlla mooy wéral mais yàlla na ñu yàlla boole képp ku ñu yàlla booleel ba ñu faj la ci loolu ba mu wér incha allah. waaw jërëjëf Cheikh Babacar sama dernière moom mooy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal ñu xéewal defal ñu tawféex bu baax. ba képp ki nga xamante ni sunu borom boole nañoo yow rek daañu la mën a jàppale sunu kéemtalaay kàttan ci sa jafe yooyu képp ki nga xamante ngi soxla rek à Dakar Guédiawaye arrêt Doubalès Kër Serigne Lamine barafal numéro de ñu mën 169 45 45 77 169 45 45 77 160 93 93 77 160 93 93 Guédiawaye arrêt Doubalès Kër Serigne Lamine barafal Vous képp ku une livraison à domicile ba fi nga wala ñu ci numéro yooyu passé leen seen ay commande wala ngeen ñoo def consultation jàkkaarloo ak ñun ñu régler seen i problème incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmande auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëf Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñoo ngi leen di sant bu baax yéen waa télévision bi fi ñëw ñoo ngi leen di déglu ba lépp lu nga xamante ni yéen ñu koy laaj rek daañu leen ci tontu incha allahu rabbi ci kàttan yàlla ak baaxama yërmandeem comme ni ngeen ko waxee rek tey da ngeen am yéene pour waxtaan ak ñun ci wàllu ndoxum siti ci wàllu ndoxum siti ngeen fas yéene waxtaane ndax ñun it ay gëstukat lañu ay chercheur lañu jëmale ci wàllu médecine traditionnelle ci wàllu médecine africaine ndoxum siti nag bokk ci feebar afrique rawatina ci feebaru sénégalais kon nag ñu ngi leen di déglu lu ngeen ci laaj rek leen ci tontu waaw jërëjëf ndoxum leen ko déggee maladie dermatologique la mooy lépp li nga ni dafa jëm ci wàllu feebaru peau ñi nga xamante ni seen yaram day tàng ci biir ndax ndoxum siti noonu lay tàmbalee ndox la bu nekk ci biir yaram mais dafay njëkk tàng bu tàngee di liggéey di liggéey bu yàggee ne dafay dem ba tàngoor boobu day am fu muy génn a faible sa yaram rek génn ci bopp bi mën na génn ci doq yi mën na génn ci karaw bi te surtout sama bokk jigéen ñi nga bëgg karaw fonk ko ndoxum siti ñu bëri foofu lay commencé ci ñoom day wàcc yenn saay ci bët ndoxum siti dana wàcc ci tuñ dana dugg ci bakkan ndoxum siti dana dugg ci biir gémmiñ ndoxum siti dana ñëw ci put ndoxum siti dina def sax nit mauvaise haleine dënn bi ndigu ginnaaw bi ndoxum siti dana laal loxo dana laal weey ndoxum siti daal amul fu muy bàyyi dana laal nit fépp fépp ba ci wàllu dooleem ci ngóoram ci kàttanu sëyam dana tere jigéen am doom dina jàpp tànk ndoxum siti day jàpp yax yi metti ndoxum siti mooy feebar bi nga xam ne mën nañu wax ni suñ ko doon topp fi ba suba duñ fi jóg maanaam mooy ndeyu feebar yi nit di dund rek luñ ci gën a seet buñ ko xooloon ba ci biir ndoxum siti dana ci nekk moo tax te ñun Sénégal macha allahu rabbi dañ ko bari la lool xam naa dinañ ci gën dugg mos naa mos naa commandé euh, benn dose euh, kii euh, ndoxum siti bi bon mu ngi tane bu baax a baax a baax looloo tax dama bëgg am beneen dose parce que ndoxum bi siti bi dafa dafa yàqoon sama yaram bi yëpp looloo tax dama bëgg jël beneen dose ak savon savon bi savon bi laa doon bëgg a jëfandiku quoi bon dama bëgg encore yow ndoxum siti bi dama yaakaar dafa yàgg sama yaram. loolu tax ma bëgg am beneen dose waaw maam raan wàllu ndoxum siti ak ramadan maanaam koor moom jullit day woor catholique day woor mais ndoxum siti moom xàmmewu jullit xamul catholique xamul ko woor xamul ko ñàkk woor ndoxum siti dëgg-dëgg bu lay daaneel mën na dem sax ba yàq sa koor waaw ndax li nga xam te ni daf lay def bopp bi metti daf lay bët bët wi lëndëm daf la fit bi tëf tëfi daf la tànk yu metti dem ba jàpp sa biir di metti sa yaram à tout moment ngay woqatu ndoxum siti di def la mauvaise haleine ndoxum siti daf la hémorroïde ngay ballonné sa lekk du rees te loolu yëpp ndoxum siti daf koy def kon nag c'est le moment ñi nga xamante ni itam weeru koor gi dañu bëgg profité am ci traitement bi macha allah bu ko defee bu ñu xëddee daañu mën a reesal ñam normal mën a woor normal du ñu am benn problème digestion reesal ñam correctement loolu rek lu am solo la loolu yëpp danañ leen ci mën a jàppale waale mayaale leen ci ay ñaan defal leen ci des bons traitements yi nga ni ci wàllu ndoxum siti mu traité ko définitivement a asalaamaaleykum maa ngi ziar man maa ngi tudd ziar naa la man nga joxoon garabu hémorroïde bi waaw wax dëgg yàlla garab gi baax na lool lool lool lool lool man de ginnaaw yàlla moom ci laa gis sama bopp maa ngi ci sant yàlla bu baax it dëgg yàlla ndax avant ma ko jël sonnoon naa lool waaye keroog bu ma ko jëlee même pas juróomi fan sentir naa ci sama bopp bu baax te gis naa ci njariñ it incha allah rabbi fu ma gisee tey kuy jàmbat hémorroïde bu soobee yàlla dinaa ko yebal sa maa ngi maa ngi jërëjëf. waaw jërëjëf membran cause yi nga xamante ni moom mooy indi ndoxum siti nag mooy suñuy lekk li ñuy naan soow dafa bari li ñuy lekk gerte dafa bari maanaam suñu alimentation dafa tolloowul ak li nga xamante ni mooy sàmm ndëgër laayu deru yaramu nit donte nag feebar la bi nga xamante ni àdduna ñëpp a ko am amul chinois amul tubaab amul ni ku jaune amul ni ku weex amul ni ku rouge ñëpp ay am ndoxum siti tubaab yi sax léegi xam nañu feebaru ndoxum siti bu baax ndax ñoom maladie syphilis lañ ko daan tuddee wala ay maladie vénérienne maanaam fépp fu mu génn ci ñoom rek am na tur bu ñu koy daan tudde bu dee ci bopp bu ci yaram bu ci tànk comme ni ma ko waxee sànq ñoom parti bu mu génn rek ñoom am na tur ñun nag wolof ñoo boole lépp def ko ndoxum siti waaye bokku ñoom seen réalité ak ñun suñu réalité tubaab bi ndoxum siti bi am na lu muy def ci moom mais ñun moom vraiment c'est le cas kon deru nit lu koy sàmm dafa nekk li nga xam te lu am solo kon nag ci kàttanu yàlla ak baaxam ak a waxtaan luñ xamal leen ko ko def incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem jërëjëf maam nag li ci gën a mooy daf lay indil ay ay douleur mën na indi ay douleur musculaire mën na indi ay douleur articulaire ñu bëri ñoo ngi am problème mu lombalgie problème mu hernie discale lombaire ñu bëri ñoo ngi def ay intervention chirurgicale mën na dem sax ba indil leen paralysie ñi mu jox leen arthrose te ndoxum sitil am ñoo xam te ne dañ doon sëy mënuñu am doom ak seen soxna am na ñoo xam te ni itam am nañu borom kër mënuñu am doom am na ci couple yu bëri am nañu azoospermie ci góor ñi am nañu oligospermie defal nañ leen ay bilan spermogramme ñu dem ba xool seen ndoxu sëykaay dafay woyof day niin bu ñu sëy ak seen soxna ndox moomu day génnaat mënuñu ci am njaboot ni lépp ndoxum siti mooy nekk li ko waral ñeen jigéen ñi seen fibrome yi ñuy am kiste yi ñu am pour mën am doom faju nañu fu def nañu lu te mënuñu am doom te fekk ni bu ñu jaaroon ci mel ne ku mel ne mu expliquer leen rek dafa leen consultation dafa leen traitement adéquat ci wàllu ndoxum siti ak am doom macha allah ñi daf leen di def mauvaise haleine te loolu yëpp ndoxum siti moo koy waral ñenn ñi sax xamuñu ni hémorroïde bi gars di faj prostate bii nga xam ni moom la ñu moo leen di gën a sonal loolu lu mu ci mënti doon ndoxum siti dafa bokk ci li nga xamante ni ay cause la ay conséquences ak ay solutions yi nga xamante ni ñun am nañ ko ci mën nañ leen ci jàppale may leen ci ay garab ak ay traitement ba mu daj man dama fi amoon feebar boo xam ne dafa ma sonaloon boo jàpp sama biir feebar bi nag wax dëgg yàlla dem naa fu ne docteur bu ne dem naa fa ñu def ay analyse ñu ne ma gis dara waaye yàlla dimbali ma may suivre toujours télévision borom xam yi yàlla xam na ne nag borom xam-xam yu bari dem naa ci ñoom. dem ci tubaab yi ba sonn ñu bindal ma ay garab ba sonn def analise bu nekk gis ñu dara dem nit ci boroom xam-xam yu bari waaye bi ma yàlla booleeg sëriñ la Bara mii ba dama dem fa wax dëgg yàlla mu commencé ma ay traitement vraiment ci diir bu gàtt rek laa tàggoog loolu te yàlla xam ne lu ma lekk daawul rees daan tiit sax pour dama daan ragala sax lekk ndax bu ma lekk rek am problème tëdd bu guddee ma tëddee ma daan fat gudd gu dama naan est du ma faat ma jàpp ko lool. wax dëgg yàlla yàlla ak sëriñ Baara mii. moo tax ma tàggoog loolu. wax dëgg yàlla du loo xam ne traitement jël temps la ci man. dama daan dem ñu may joxe reen ak i garab may naan ba sonn. dara waaye wax dëgg yàlla ci kàttanu yàlla daal moom mii moom ma faj. waa fajal ma yeneen sax wax dëgg yàlla loo xam ne. waxuma ko woon ndax nit ku nekk boo amee jàngoro la la gën rek ngay gis. jërëjëf Mame Rane kon symptômes yi moom comme ni ma ko waxee rek nit ki moom bu la jàppee dalay lay mën nga nekk sax kuy dox nag di dem mais da ngay xam ni vraiment sa vie handicap la lay indil. ndax comme ni ma koy waxee am na ñi nga xamante ni dañu am faiblesse sexuelle bu terrible ñi am éjaculation précoce bu terrible ñenn ñi nga xam te dañuy am soxna mais dootuñu ci mën dara seen awra day tuuti di ndaw di peer di ndaw di dellu ginnaaw loolu yëpp dafa bokk ci symptôme bi nga xamante dafa jëm ci ndoxum siti te surtout ak ñenn ñi mettu biir la leen di def ndoxum siti bu nekkee sa yaram ngay feeñ am ñu dem ba defal leen fibroscopie pour ñu mën ko gis wala ñu mën ko xam comme ñu ko waxee sànq ñenn ci yax lay laal seen tànk day ruux di crampe guddi bu ñu tëddee duñu nelaw seen yaram day tàng yaram bi à tout moment da gis muy crampe rek di kraj kraj kraj ñu dégg seen yaxu tànk bu ñu ñëwee ci la ñuy mën a poser une bonne diagnostic defal la consultation xoolal la bu baax ndoxum cité bi fan la génn ci sa yaram nan la lay def lan la yàqal loolu yëpp dans la consultation dañ ko def ndax dafa am un traitement forfaitaire général bi nga xamante ni mom lañ lay jox buñ la ko joxee incha allahu rabbi dañ lay mayale consultation gratuite lu mel ne ci gerte dafa bokk ci li nga xam te dafay favoriser ndoxum city bu baax te loolu yëpp yàlla may ñu ci nag ay xéwal may ñu ci ay tawféex yi nga xamante ni képp kuñ ci yàlla booleel daañ la mën a may lay garab may lay ñaan yàlla musal la ci loolu ci wàllu ndoxum city ndax li muy yàq dafa bari comme ni ma ko waxee sànq surtout jigéen ñi nga xamante ni itam ndoxum city bi dafay dagg seen i karaw di ko damm ñuy am ay heure seen yaram yi di ñaar ñuy am ay ay lésions di am ay démangeaisons seen karaw yi du mën a pousser wala seen karam yi am ay taches yooyu yëpp ak lu mu ci mënti doon contacter leen bépp jigéen bi xamante ni sa yaram wala sa peau am na lu la ci neexul rek boo ci contacter daañu la wax ban traitement lañ la mën a jàppalee wax la garab bi niñ la koy joxe ba nga jot ci ci kàttanu yàlla ak baaxam a yërmandeem. salaamaaleykum sëñ bis li ngeen ne mbaa yéen a si jàmm baax maa ngi nuyu di leen ziar lu leen ñaanal jàmm sa di ko si yéen dama déggoon sa pilis la si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine man daal daf ma sonal toro wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak euh, bu ne bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonnoon naa de lu ma doon dund ay at mauvaise haleine yi mu sonal ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni ni sax balaa may egsi si man laa koy nuyu wallahi munuma sama yitte yépp laa daggoon wallahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd si ay bain de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallahi ngeer sax lu ne luñ ne baax na rek ma baaxal sax di ko def ay bain de bouche ak lu ne waaye mauvaise haleine yi ah, fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu ma ma indi bi ma naan butéel ba muy bëgg a jeex mu mel ne daa gën a yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi maa ngi waxante nit ñi normal fi ñu toll gëmewuma ko sax nag wallaay gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti métti ci man moom toog di ko xalaat ko xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla na leen yàlla jàppale daal yàlla na yàlla fay gën a wéral cëriñ kontaan naa nekk leen si jàmm ju bari jërëjëf kon nak képp ku ñu soxla rek mën nga ñu woo ci 77 169 45 45 77 169 45 45 ñi nga xamante ni ñoo ngi Touba te soxla traitement ndoxum siti bi mën nañu ñëw Jannatu Mahwa ci wetu hôpitalu Matlaboul Fawzeyni bu dee Dakar Géejawaay arrêt du Balès Kër Serigne Bara am na livraison à domicile même boo nekkee kilifa wala boog nga sori wala mënoo dañ la ko mën livrer à domicile incha allahu rabbi ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak amanu Serigne Touba Assalamualaikum warahmatullahi wa taala wa cheikh bi mang lay ñu di la bu bëri bëri di sama ay kàddu fekk la ci jamm ah man as ndong la gi ñu wax bay Modou Thioune maa ngi Congo Brazzaville tu YouTube bi lek la gisoon say publication deug yalla ma sha allah ma lol lol lol lol. lo lo lo lo lo lol kontaan ci kàddu yi tamit kontaan lool ci leeral gi. moo tax ma ne woon naa ci laa jële si numéro bi nii dinaa la woo nga xamal ne maanaam macha allah liggéey bi rafet na euh, kàddu yi rafet na kàddu yi leer na te wax dëgg yàlla neex naa dégg tamit te lépp leer wax dëgg yàlla moom nit ki euh, booy leeral tamit euh, te ñu ngay leeral nekk ak mbooloo te ñoom ñëpp ñu war cee jëriñu tamit dafa war a leer loor waaye wax dëgg yàlla moom tuwaat fa kàlla daal kàddu yi daal lañ ko jotee a déggee ma ma ci li ma lay suivre yëpp wax dëgg yàlla alhamdulilah rabil alamin daal say kàddu rafet na say kàddu leer na te wax dëgg yàlla njëriñ kese tamit lañ ci fekk jërëjëf.